وكل من خدمني أو زارا فنجي واغفر له أو زارا ليغيال كو باخ شيخ القديم اك زيانكو بوكنا تي ام سولو لول تي مريد بي باتانا مون شيخ القديم نيان نا بوم تي وير خصيدم دي دي مطلب الفوزين ngir kep ko ko ligéeyal wala mu ziar ko sunu borom defal ko ak njéggel ba kon bokk na ci yi am solo lool ci dundal waxtu màggal gi ziyaara ji ko moom ku baax ki waaye itam liggéeyal ko ci bépp anam bu dagan rabbi amin wajal bina iya bina saafiya yajuruni ila xuyurin saafiya wajal bina iya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi